Dakar Actu di dalal ci bés bi kii di Mayoro Jones di mannequin buy évoluer fële ci Brésil ñu bari ci askan wi bëgg xam kan mooy Mayoro ak ay jaar-jaaram foofu ci bitim réew Mayoro naka nga dooree ci mannequinat biir Brésil. question boobu moom miin naa ko nan laa def ba nekk mannequin biir Brésil bon man sama benn copine moom moo ci dugal yeah man dama noonu liggéey naa kon gars yi ni ñu koy defee foofu rek. ben jour la la waroon def test bon euh si la ma kañ dem ma dem and ak mom dem def test man ma am mom amul non la intégré noonu laa nekkee mannequin professionnel. bi may dugg si métier bi maa ngi am suma ma 23 ans defe naa. suñu wa kër nak jaxalon na len ba ci sama wa koñ. parce que ñu bëri dañu mënon envoyer message bo yow nu mu ni légui lan ngay liggéey parce que dañ doon gis photo yi ci Facebook bi sama Instagram affaire yooyu bon man suñu waagar xam nañ ma xam nañ ni man du ma dugg dara si lu ñàkk fay la xam nañ ma bu baax waaw bañ ko yégee dañ ne ma góorgóorlul xam nañ ni nit ko am fulla nga nit ko am fayda nga waaw xam nañ ni tamit doo dugg si lu bon góor góorgóorlul non mën nag sama jàng soriwul noonu ko vraiment classe nante yi laa bàyyi jàng sama jàng soriwul mais maa ngi noonu liggéey bon maa ngi liggéey ban gis-gis la askanu Sénégal am ci seen métier bi. Sénégal mannequin yi fii ak mannequin yi fële bokkul fii Sénégal bu nekkee góor nga boo nee mannequin laa rek tag dafa bët bu ñu lay xoolee contraire Brésil boo nee mannequin laa dañ lay yee da ngay dañuy am orgueil yu maanaam dañuy dañuy dañ lay xool ak kontaan quoi xam ne kii jàmbaar la kii mu ngi def liggéey boo xam liggéey bu metti bon defe naa nag loolu yëpp si man mais man ba may gën a nekk xale. Sénégal bi su ma déggaan ni diw mannequin la rek sama xel day xam nga da ngay xalaat ni kii moom xam nga mannequin est-ce que yëfu xam nga est góor la parce que ñoom mannequin yu góor yi fii ñoom ñooy wane loolu mais bu dee au Brésil mannequin soit ku la gis du la jaawale leneen parce que mannequin nga góor nga da ngay siggi dangay ngay entraîner da ngay njool xam nga dara daraay ñàkk fayda doo si nekk waxuma la euh, Brésil fa la maanaam am na ay affaires yoo xam te ne brésiliens yi ñu ngi koy def sénégalais yi sañu ñu koo def mais cadre mannequin la ñuy war bu dee au Brésil mannequin liggéey la kon yeneen liggéey yi. naka ngay dundee critique yi ñuy jëmale ci seen métier bi. man ñu may critiquer de ah waaw ah, bëri na nag bëri na yenn saa yi xam nga ñu wax la wax yoo xamante ni tamit mais nag wax yi ñuy wax yëpp du doon sa kanam sa ginnaaw même fee sax da gis gars yi nga xamante ni xamaguñ la woon yenn saa yi bu ñuy dégg sa tur wala ñu lay gis si télé bi nii bu ñu lay gisee bët bët da ngay gis lay xoolee dañ naan si si boppu sénégalais yi mannequin daal yow man mannequin nga rek da ngay da ngay yambar da ngay bàyyeeku boo nekkee góor wala bu dee jigéen nga yow da ngay nekk si milieu bi rek soit euh, yaa ngi def naka sudul noonu te fekk demeewul noonu demeewul noonu mais man moom kenn musul taxaw ak man jàkkaarloog man wax ma si loo xamante ni metti na ma boobaa dama koy lijjanteeg yow wala bo lan nga xalaat ci niveau mannequinat bi fii ci Sénégal. Dakar fashion week. bu 2016 bi danaa fi la ma mais ñi ma gisoon ñu défilé bu dee au Brésil moom ñooñu duñ défilé quoi vraiment ñu baal ma ci cadeau yi nak quoi mais ñima ma ñu doon défilé ñu ci ëpp bu doon feulé la ñom duñ défilé parce que carrière internationale bo amé plus de 30 ans wala luko ko rek doto ko défilé ti xana ay film ngay mëna jé wala ay wala ay pub waaw bokul quoi Sénégal fi li ñuy wax mannequin ak Brésil feulé li ñuy wax mannequin bokul quoi vraiment. C'est jaar jaar ci métier bi. agence bi ma njëkk a jaar mooy agence Bravo Modèle mu bokk ci agence yi gën a mag biir Brésil bu ma jógee Bravo si laa demee Agadea Modèle Agadea Modèle nag foofu laa commencé sama carrière ba sentir ne man man mannequin laa commencé si lekk tuuti xaalis quoi vraiment parce que ba mu fa demee dañ ma dañ ma dañ ma def kon leader yeah ma leen di fu ne nag man ak ñoom ñu liggéey liggéey bu rafet ba yàlla jeexal suñu contrat ma xoolaat yeneen agence yi nga xam ni ñoom ñoo gën a nekk niveau international ba tey jii agence rock rock rock management rock MGT vraiment. défilé São Paulo Fashion Week un événement bu ci naka nga ko São Paulo Fashion Week képp koo xam te Brésil wala nga euh, Europe wala nga Amérique latine sa rêve mooy nga défilé Paulo Fashion Week parce que semaine de la mode semaine boobu maanaam télé yi Brésil du ñu wane leneen lu dul défilé yi bon ay star star yi dañ fay nekk footballeur yi ñu nekk ci gouvernement bi bon bañ ma nee São Paulo fashion week ngay défilé man leen lan mooy São Paulo fashion week mu ne mooy troisième défilé bi gën a mag ci àdduna bi man leen yee jour boobu kontaan naa xam nga gis naa star yi xam nga affaire bi daf ma jëlee kaw nag quoi vraiment démb yaa ngi toog. xam nga di xalaat ni man est-ce que jour man dinaa feeñ télé Sénégal yàlla indi le Brésil ñu lay wane si télé yi ngay toog ak nit yoo xamante ni da nga leen doon gis si télé bi vraiment affaire bu graaw la quoi. nga nekk ku siiw lool ci man kinaa bi fële ci biti réew noo def ba egg ci stade boobu. waaw am na tuuti chance ak liggéey am na tuuti chance ak liggéey bon commencement bi nag yombul ñu siy nekk xam nga bitim réew war a dem liggéey yi nga nekk fa naan da ngay dem def ay test ak xam nga. yooyu moom chance am na si mais nag waaw liggéey tamit am na si quoi vraiment. ñu bëri jàpp nañu ni ngir nga yegg ci yenn tolluwaay yi ci métier bi faw nga bokk ci secte wala lobby ndax loolu dëgg la. loolu c'est faux loolu amul nit ñi ñoo ko def seen bopp rek milieu boobu mu ngi mel ni société milieu manquin bi showbiz bi au Brésil mu ngi mel ni société dangay ngay prouver nga am profil bi di défiler di bokk ci film yi di bokk ci publicité yi amoo profil. tubaab amul kersa amuñu amuñu si sentiment amoo profil bi dañ lay génne ma, ay lobby amu si ay xawma promotion canapé amu si dara amu si da ngay prouver nga am nu mu tudd nga am profil bi nekk mannequin ñu lay jël ngay liggéey di la fay xaalis c'est simple amul secret kon mu ngi mën joueur da ngay entraîner ba pare mën a football ñu teg la si terrain bi yow nga football loolu rek la amul secret. gis nañu ne def nga ay publicité ak ay kàngam ku ci mel ni Neymar. man ak Neymar. Neymar dañ ko jël jël ma ñu def publicité comme ni ma ko defee ak yeneen star yi foofu kon Giuseppe Vinci kon Rafael Nadal comme Tata Werneck bëri nañ artistes yi bëri nañ parce que su ma doon lim instant bi star yi nga xamante ni man ak ñoom ànd nañ def publicité dañ may jël jël leen ñoom ñu fay leen fay ma ñu def publicité bi. ku nekk dem sa yoon mais après ñu si bëri nag nañ am ay contact xam nga nañ avanté message nañ yorante numéro mais am na ñoo xamante ne tamit gardé wuñ suñu contact garder wuñ ko mais Neymar moom dañ ko jël jël ma si benn publicité bon ñu def publicité bi anyway nice yeah mu nekk nit ku simple nit ku nit ku nit ku cool tamit. lan nga xalaat ci coowal Miss Sénégal 2020. loolu defe naa nekkul euh, comité organisation bi ñoom ñoo ko war a def loolu agence yi ñoo ko war a def te Sénégal est-ce que malheureusement est-ce que vous na agence de mannequin Vous faites ne côté Miss Sénégal bi nag bon man maa ngi koy féliciter. di ko félicité waaw maa ngi ah affaire yi daal mu ngi noonu daal mu ngi noonu doy trop mais daal maa ngi koy encouragé féliciter. ko bon yaay loolu la la sumu mun a wax quoi sori vraiment. nga may ñu yenn ci jaar-jaar yu la marqué ci sa carrière. man Ronaldinho man moy sama joueur. ngeen war a def publicité ngeen dem di gravé di gravé ba ay ngoon ñu ne leen Neymar mu ngi ñëw ñu teg si ay cinq minutes Neymar gaara hélicoptère am ñëw nuyu leen ñu ne la yow ak Neymar yéen a war a bokk publicité bi xam nga loolu du lu ndaw te Neymar tamit nekkul nekkul dëgg la booy la mu ngi liggéey mais ne nekkul n'importe kii bon loolu daal nekkoon na lu ma marqué trop trop trop